élection premier tour koor comme boo duggee nee bu rek salaamaaleykum Père Sow. Père Sow maa ngi lay nuyu de. série prématuré noo def ah kër gi dana jàpp perte nga soxla nag. xoolal discours bu ma waxaat série prématuré. Ibrahima Khalil laa laa tudd. waaye Père yow bu ñu toll nii. duguma ci yooyu de bu ma waxaat série prématuré. série prématuré. yaa ngi

toog moom Doudou la lu xew may waxee yow faale woo ma lan la yow. marché laa jóge nag marché laa jóge lan la. man lu ci la. weeru koor. man sa téléphone. sama saa. effectivement xoolal xoolal yow tubaab bi da nga fàttee defar am naa réveil nag mu ngi tudd trois aussi lan la. a ma. yow ba sonn. déedéet amoo dudd nag yee naa la dama la yee ngay ne on on yu jeex ma jàpp ne dama moo tax. effectivement forcé ma. waaw naa la forcé suba. bul mel nag yow. ah père yow chéri chéri père ma la bàyyi jàmbur. sànq xamul lu mu def Adamo. amul lu mu def quatorze heures laa waaj nuyu ko quatre fois salaamaaleykum dégg ma naka yow père ñàkk xët da ngay da ngay délire yow ñàkk xët e bàyyi jaamu nga bàyyi jaamu te dëkk ji daa ragal góor de kii ragal lu ko de maa yow fa la yëpp yow la nag yëpp yow naa la nag moo dund parce que bàyyi jaamu de de leen de waaj e bàyyi jaamu bàyyi jaamu bu dinaa yee rek trois heures maa la yee ma sama jaamu eh, bàyyi jaamu de bàyyi jaamu yow xam nga loolu day suqalekul bàyyi jàmbur nag ki sama xarit la bu ko wax loolu waaw wuy ma reer bu neex laa lay toggal bul mel nag yow it waa reetaan na xam nga man yaay sama xarit. ah lii moo tax ma bëgg la ba mënoo ma mere. waaw xaaral ma àgg ci biir nag ma teg bagage yi su ma su meeku ma ñëw ma a la reer bu neex. dinaa ci bàyyi xel incha allah xoolal tey ma lay yee xëdd ñooy ba fajar a xëdd du dëgg. yow loolooy am xam nga yow laa bëgg maa ngi àgg ci biir sa ñoom. ay Jepnya Jepnya Jep kami itu di mom siap naka mo yaa ci jàmm ziar naka la naka njaboot bi am nga jàmm bu baax a baax naka koon ngeen tàngoor bi waaw yow tàngoor moom lépp jàmm waaw alhamdulilah aarika allah sant yàlla maa ngi lay woo démb mais xam naa téléphone bi daa nekkoon silencieux wala nga doon dallu rek ba loolu la ci guddi gi rek ah. bëggoon laa yëgal ni suba bu ma xëyee naa fi ñëw ah boobu de téléphone bi neexul ak man ah, dëgg na dëgg na am na ñu ma fi jotoon a yabal sax jot nañoo ak si ay pétirkat waaw am na fi ñëw nag ah am na ñu fi ñëw pour ñu peinture ma beneen nekk desoon. waaw ñu yoroon peinture mais xam naa boo xoolee soit mën naa am ñu peinture mais xool ma ci biir. baal ma baal ma dugg xool duggal yónni boo xam. ஆளுக்காக சரி குட் நாட் ஆ Kini bagi? Wow. Why good nothing? sama gars yi moom nañ ci ban heure lañ ci jóge sax yàggul ni yàggul ngay génn de ndeysaan ci yàggul ngay génn de waaw ñoom maa leen yebaloon ñu pént xam nga néeg bi dafay des ma doon ut keneen ku ma jox ndax xam nga grand bi tamit ba ma joxee kër gi daf maa lu leer pour ma joxal ko ñi nga xamante ni fii dëkk dëkk ma ko moo may wax soxla soxla la yow ak ak bu bi ci biir kër gi rek disco ma nga Olha esse escomorão, mano. Mano, tu. Fica aí, Will. Pode pedir novo, bàyyi jàmbur ma. Fatima eh, maa ngi rek Fatima ah, tudduma pis. Pisco laa tudd waaw Pisco. ah sa lii wax ay waay tudduma pis. tudduma pis Pisco laa tudd. sëñ bi na nga def eh, ça va naka maa ngi ci jàmm ça va bien ça va. alhamdulilah ok dama mu nekk. naka coono yi ça va cool ah. nice mais bàtt bi am na <laughs> ah man ma nga war a jox. boobu nag li ma nekk si ma damay fàttali samay jamono quoi tay ma ciy toll dëgg dëgg. Eh, tey ngay xam ne léegi. mais lakkal na rek. waaw mais nice ñu cool. mais bàtt bi ba pare amoo. mais loolu du ñu boole sama boy nga sama boy ah, mais sinon yéen a ci jàmm baax. waaw waaw naka naka njaboot ko. waaw ñëpp ci jàmm waaw man maa leen wóolu woon jàmm na. nga xam ne ni tey ba léegi. waaw ndax bëgguma lu bu euh, set. ngeen nekk ci bu rafet. macha allah gis naa ko na waaye xam naa ne coow lee bari tuuti waaye xam naa ak seen bëy bi ngeen yor ci wet. coow mënul ñàkk. waaye ku ne xam ne ni néeg bi dafa am néeg bu desoon. maam nag ku ma ko doon utal gis ah, yabal naa fay bindikat xam naa fekk nañ ko. dëgg la waaw ñëw nañ ko. waaw loolu moo waral samay tànk tey. xam naa ne aw ma jot sa waaye du ma jot ma jot naa ak sikki bi yëg leen loolu. ndax dafa am ku ma ko war a jot moom. góor bi wala jigéen moom. booy teel rek yow. ah damay laajte yemal xale nga yemal. Ah, bàyyi ko jigéen laa koy jox. ah, ah waaw waaw soxla ñu woon. soo gisee moom ma bëgg a ñëw bëgg a waxtaan ak yéen balaa muy dugg si biir kër gi dama bëgg ñeenteel ngeen teral ko ngeen taxagal ngeen jàppee ko ni seen bopp. incha allah mbir yi ñu mën a am dégg nag ak coow lu bari ñu mën a am dégg nag. kooku dafa nekk ni koo xam ne dafa spécial ci moom bëgg naa su ñëwee yooyu yëpp bañ fay am. waaw père doo ñu luyoo fan li ñuy wax ay ndéeg yooyu noonu yëpp dañuy fay suñu xaalis. voilà en part yooyu prématuré yooyu bu ñu ko nangu man du ma ko nangu. parce que man damay samay gan te non non Fatima dafa ndànk kii ñun ñoo koy fay penc yi mi penc yi suñu xaalis la hmm. munuñ koy fay xaalis mu ñuy wax da ngeen di biir buñ biir man damay may gan danañ fi ñëw loolu lépp dëgg la mais nañ ko waxtaanee rek moo gën su ko kii kilifa la dañ koy war ma naan goro wuy ma man xam nga lan laa lay wax booy booy nuyee sa kër day xool moo koy nuyee parce que am na ñenn nit ñoo xam xam ne nii dëkkul ñoom. day yàq sa business duñu boole parce que xam nga booy bi affaire da dañuy yàq business. affaire da booy taawul la may dañuy génnee nit de. ah bay ah. jàmm non loolu après maa yow dinañ gisee ci ruq bi mais booy en parlant de location c'est mais yow fa nga naan jaar jaaroo nu mu demee noonu maa ngi lay woo doo ma jël ñëw naa fi nga may làqatu boo déggee sama baat da ngay dugg ci dugg xam tey lan lan moo doon ba làqatu ji woon mais tamit su ma la wooyee jotul non man yow location dañ daan gisante feneen ma la koy jox fan yi yëpp biir bi métti moo ma sonal sa mbiir bi da doon métti mm, mm, mm. mbiir moo doon daw we, we know. Anyway, but if mu ne ma fii ak semaine la solo gaa ma jaay fa ma man est-ce que ne man ci lii laay tedd ni ma gisee xëy yu ma gontoog maa ngi sañ sana yor samay kóol gars yi jàpp ne maa ngi moom te yoruma boo ma joxul falal dama lay ut doo ut keneen parce que aw ma boy town ngay jaay maa la gën a boy town bàyyi ci xel la wax dégg nga mais eh tos waaw kër gi bariwul. waaw kon xam naa moom maa ngi ñëw yëg kër ga. waaw xam naa ne soxna si. waaw soxna si ma toog ah na ci jàmbale. waaw waaw waaw jàmbale na ci dëkk waaw. léegi ñu bàyyi la ci kii bi ci xë ci xëdd bi. incha allah amul benn problème. waaw yow. ñàkk jom nga. ay sa jëkkër gi moo ñàkk jom. pour que digg na jëndi ba léegi. waaw oui. maa yow yow. yow bàyyil bu nit ñi tëggee yow nga ngay ngay ngay tàmbal yooyu. xale ah, nga yemal ci plan la bàyyi jaamu. yow kii dina dina yaa ko yëngal. yow kii ay appartement rek bu ñu ko ne. kii billaay maa yow nga jékki woon politique. Boy Dia wàññil. ah moo la sax kii dee de. waaw waaw ma ji ma ne saa ma toog sama nit yi yëf yi ma nag. xam nga man yaa may faj. waaw waaw waaw. bu ma amul woon dama lay créé. ñëw bàyyi ko foofu ci ko ci ko. gis naa ko de àddina ko yàgg. wuy ma bu ma fàtte de ne ko mooy papi. yow ñoo ko fisco fisco wàññil ma balaa ji sax. ma fañi maanaam biir bi yéete yow dara dara. yow ma pompe lépp. ma ceeb yow. हाँ ओके बंदा मैं ये जी